Première édition de ce bloc d'information. Bonjour Adjaratou Seignon. Bonjour Maria. Et les grèves dans les universités, on en parle. Euh, la crise des infrastructures enfle en effet dans les universités publiques du pays après Bombay en grève illimitée pour des amphis, un campus social adapté. Étudiants et travailleurs de l'université de Thiès se mobilisent ensemble, avertissent une dernière fois et fixent un délai d'une semaine. Ils refusent désormais les bâtiments en location éparpillés, insuffisants. D'ailleurs, plus de 6000 étudiants peinent à débuter les cours faute de salles. Pourtant, le gouvernement dégage des pour installer un peu partout des centres de formation. Le centre formation formation en horticulture de Thiep doit d'ailleurs être réceptionné ce mois d'avril, nous dit Lamine Gueye Saman. Conflits pastoraux. Le Conseil national de la Maison des éleveurs interpelle encore une fois le chef de l'État après les récents affrontements notés dans la forêt classée de Bandia. Et le développement de tous ces titres, c'est juste après ceci. Pissignan. Bonjour à tous, Alioune la mise en onde de cette édition. Début du mois de Ramadan ce mercredi 14 avril pour une grande majorité des musulmans au Sénégal, c'est la date officielle retenue par la Commission nationale du croissant lunaire. Une partie de la communauté musulmane a entamé le mois de jeûne hier mardi. Retard dans la livraison des chantiers pédagogiques de l'université Iba Der Thiam de Thiès, l'intersyndicale des travailleurs et la conférence des étudiants se mobilisent, euh, donnent un délai d'une semaine à l'État du Sénégal pour la reprise des travaux. Les travailleurs et les étudiants refusent désormais les bâtiments en location éparpillés avec des conséquences dramatiques. À Thiès, la correspondance de Babacar Ndaw. À l'université Iba Der de Thiès, les lenteurs notées dans l'achèvement des opposants, Depuis l'université de Thiès a été créée. Il a fallu attendre donc ans pratiquement pour que l'université de Thiès devienne l'université Iba Der de Thiès, ce qui n'était pas déjà normal. Quand il a été créé en il a fallu pour qu'on commence à parler maintenant des chantiers de Thiès, alors que l'université continuait à grandir en nombre. Et jusqu'à présent, c'est les mêmes locaux qui étaient là qui continuent à abriter plus de maintenant de 5000 étudiants, ce qui n'est pas normal. On a des bâtiments à location dans toute la ville de Thiès, pratiquement consomment tout le budget de l'université de Thiès. Avec un effectif de plus de étudiants, les nouveaux bacheliers de l'université Iba Der de Thiès peinent à démarrer leur cours, à déplore le représentant des étudiants Khalifa Ababakar Sy Traoré. Les problèmes de salle de classe qui se posent, il y en a beaucoup d'étudiants qui sont ici presque l'université de Thiès est éparpillée, l'université de Thiès n'est pas unie, l'université de Thiès manque d'infrastructures et l'université de Thiès est une université excellente qui devrait être encouragé, qui devrait être respecté. Et cela revient du ressort de l'État. Une mobilisation sur le site suivie d'un débrayage de 24 heures ce mardi. Un dernier avertissement assorti d'un ultimatum d'une semaine. Aujourd'hui, l'intersyndicale Père Patse et étudiants donne un délai d'une semaine à l'État afin qu'il puisse mettre tous les moyens à bon port afin de nous donner ces chantiers avec une rapidité excellente. Sinon, toute chose qui découlerait de cette rencontre sera de leur entière responsabilité. Babacar Ndaw, Thiès Sud FM. Babacar Ndao l'université Alioune Diop de Bombay est déjà paralysée par une grève illimitée les étudiants ont entamé la lutte euh, pour exiger l'amélioration des conditions socio-pédagogiques euh, conçues pour améliorer l'employabilité des jeunes et la compétitivité des entreprises euh, le centre de formation en horticulture de Thiep dans le département de Kébémer sera réceptionné au plus tard ce 25 avril 1 milliard 300 millions ont été euh, dégagés 15 euh, euh, hectares mobilisés. Le taux d'exécution des travaux est estimé à 90%. Les précisions de Lamine Guessama. Les travaux de construction du centre de formation en horticulture de la commune de Thiep en pleine zone des Niayes dans le département de Kébémer avancent à grands pas. Le taux d'exécution physique est les techniciens de l'entreprise en charge des travaux de 90%. Bâti sur une superficie de 10 hectares qui accueille les blocs administratifs et les salles d'enseignement, Ce centre est aussi doté de cinq autres hectares destinés à un champ d'application. Il est conçu pour améliorer l'employabilité des jeunes et la compétitivité des entreprises. Dr Souleymane Soumaré est le directeur général de l'Office national de la formation professionnelle. Ce projet qui est la construction du centre de formation professionnelle en horticulture va permettre de former davantage de main-d'œuvre qualifiée, mais également va susciter la motivation des jeunes qui s'intéressent à l'agriculture, qui s'intéressent à l'horticulture, donc pour se faire former et avoir une qualification pour leur permettre de contribuer à l'autosuffisance alimentaire du Sénégal, mais également à la sécurité alimentaire. de 300 jeunes sont attendus dans ce centre de formation en horticulture de Thiep. Docteur Souleymane Soumaré, directeur de l'ONFP. Les de sélection par le ministère à travers la direction de la formation professionnelle et technique qui se aspect pédagogique. Mais nous pouvons dire qu'aujourd'hui, ce centre va accueillir un peu moins de 300 apprenants si toutes les filières qui vont être développées sont cas sollicitées par ces apprenants. La capacité tourne autour de 270 apprenants. Cofinancé par l'État du Sénégal, la Banque mondiale et l'AFD à hauteur de 1,3 milliard de francs CFA, le centre, selon le directeur général de l'ONFP, sera réceptionné au plus tard le 25 avril de cette année. Lamine Guise Samane Louga Sud FM. Mami Lamine Gueye euh, Samane euh, Mamadou Lamine président du mouvement Tekki euh, dans la question économique de la semaine interpelle euh, le gouvernement sur la question du rapatriement des jeunes Sénégalais d'Espagne Et il affirme que le chef de l'État a accepté de rapatrier des jeunes Sénégalais d'Espagne meurtris par ses promesses d'emploi non tenues au lieu de demander leur régularisation. Euh, mieux, il organise, il se propose d'organiser le travail des jeunes Sénégalais dans les plantations espagnoles. Euh, donc, euh, il estime que euh, le Sénégal rejette ainsi l'industrialisation, euh, que le chef de l'État rejette l'industrialisation du Sénégal et préfère des importations financées par la dette et les transferts de la diaspora. Euh, Mamadou Lamine Diallo président du mouvement euh, Tekki propose une commission d'enquête indépendante euh, pour l'ADER la délégation à l'entrepreneuriat rapide et toutes les politiques mises en place pour l'emploi des jeunes donc un échec du gouvernement en place Puis euh, toujours dans le cadre de euh, l'actualité, euh, recrudescence des conflits pastoraux au Sénégal, le président du Conseil national de la Maison des éleveurs regrette les récents affrontements notés dans la forêt classée de Bandia entre acteurs du monde rural et partisans d'un propriétaire supposé d'une carrière, un phénomène récurrent dans la région de Thiès, déplore Ismaël Sow qui dénonce l'ingérence des hommes d'affaires dans la zone agro-pastorale la presse. Ismaël Sow interpelle à nouveau le chef micro de Babacar Ndaw En tout cas, j'ai reçu l'information avec PN. Aujourd'hui, je lance appel pour les autorités de l'État du Sénégal, surtout le président de la République pour qu'il sorte et examine ce qui se passe dans le forêts des Bandj. Parce que nous, en tant qu'éleveurs que nous sommes, mais aussi en tant que responsables que nous sommes, nous sommes vraiment étonnés aujourd'hui. Parce que ce qui se passe hier, si on a laissé tomber comme ça, et aussi il y aura mort d'hommes que nous ne souhaitons pas dans notre cher Sénégal. En tout cas, j'ai entendu beaucoup de choses, j'ai fait beaucoup de déclarations à travers les médias, j'ai écrit aussi des correspondants, a pas de souhaiterais aujourd'hui que le président de la République examine ce qui se passe dans les forêts de Banj. Parce que si l'État veut laisser les hommes d'affaires continuer par tasser cet espace, moi je ne sais pas ce que les éleveurs devaient faire. Et aussi le secteur de l'élevage, on ne peut pas le négliger parce que je sais que le président de la République, c'est quelqu'un qui aime le secteur, mais il y avait des problèmes. C'est un secteur qui emploie beaucoup de monde, qui crée aussi des emplois, des emplois directs et indirects. Moi j'aimerais bien quand même que le président de la République réfléchisse comment il peut faire maintenant pour redresser la situation. Et seulement les éleveurs ne peuvent pas déplacer, aller au Mali, parce que nous ne sommes pas des Maliens. Mhm. Ils ne pourront pas aller aussi en Mauritanie, parce que nous ne sommes pas des Mauritaniens. Qu'est-ce qu'on peut faire Nous devrons rester ici mhm. pour travailler dans notre secteur, mais aussi à condition que l'État nous accorde son attention, parce que aussi il y avait des eaux forêts. Moi, ça m'étonne quand j'ai entendu les hommes d'APR rentrer dans les forêts et créer aussi des, des carrières où il y a les eaux forêts, moi je pense que eux, est eux qui les devaient empêcher de le faire. En tout cas, vraiment, j'ai peur, bien quand même que l'État nous aide. Ismaël Sow, président de la Maison des éleveurs, qui interpelle le chef de l'État sur la recrudescence des conflits pastoraux au Sénégal. Parlons à présent du coronavirus. La région de Saint-Louis comptabilise à la date du 12 avril près de 26 000 personnes déjà vaccinées euh, contre le coronavirus, dont 19 787 vaccinées avec euh, AstraZeneca. Aucune difficulté enregistrée selon les autorités euh, sanitaires. sanitaire, retenez que Saint-Louis a enregistré au total 1522 cas confirmés de coronavirus pour 80 décès. Les précisions avec Yves Tendek. Lancée le mercredi 24 février 2021, ici à Saint-Louis, la campagne régionale de vaccination contre la pandémie de la COVID-19 se poursuit de plus belle dans la région. C'est ainsi qu'à la date du 12 avril 2021, soit 47 jours après, la région médicale de Saint-Louis en est à 25 943 personnes vaccinées contre la COVID-19 et sur ces 25 943 personnes ayant été vaccinées, les 19 787 l'ont été par le biais du vaccin AstraZeneca contre 6 156 personnes chez qui on a administré le vaccin Sinopharm. À ce jour également, c'est tout le personnel médical de Saint-Louis qui a été vacciné contre la Covid-19, à en croire les autorités de la région médicale qui rassurent également qu'aucun effet secondaire n'est été signalé jusqu'ici chez les personnes déjà vaccinées. S'agissant maintenant de la situation relative à la gestion de la Covid-19, la région de Saint-Louis en est au total à 1522 cas confirmés de coronavirus depuis le début de la pandémie, avec plus de 80 cas de décès enregistrés. Également, sur les 865 cas pris en charge à domicile dans la région de Saint-Louis, les 857 cas ont été guéris. Comme pour dire que la situation est maîtrisée ici en ce la gestion de la pandémie de la COVID-19. Mais les autorités de la région médicale continuent toujours d'inviter les populations au respect des mesures barrières afin de barrer la route définitivement à cette maladie qui a beaucoup affecté tous les secteurs de l'économie if the line Sud FM. Interconnexion du réseau électrique de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Gambie entre la Gambie, la Guinée et la Guinée-Bissau. Les travaux exécutés à de l'a fait savoir à Sédhiou lors d'un comité régional de développement. Les dispositions sécuritaires, les mécanismes de compense des personnes affectées sont prises en compte, rassurent les responsables. Euh, la

gouverneur de Sédou chargé des affaires administratives Modougay qui présidait les travaux, ce projet de l'OMVG a réaffirmé son engagement à travailler avec les sectoriels de chaque pays dans le cadre de la lutte contre les violences basées sur le genre. Sud FM. Et puis un mot sur euh, la pandémie du coronavirus dans le monde. Les autorités sanitaires américaines ont recommandé hier une pause dans l'utilisation du vaccin de Johnson Johnson afin d'enquêter sur l'apparition de cas graves de caillots sanguins chez plusieurs personnes aux États-Unis. Le groupe américain immédiatement annoncé retarder le déploiement de son vaccin une dose en Europe. L'Afrique du Sud, dans la foulée, a suspendu l'utilisation de ce vaccin moutons vaccinés avec une première dose d'AstraZeneca auront leur deuxième injection avec un autre vaccin, le coronavirus, qui a fait près de 3 millions de morts dans le monde, Maria. Merci à vous, Adjartou Issaignan. Rendez-vous à 7h30 minutes pour la seconde édition de ce bloc d'info. juróom ñaari waxtu jot na sax ba teg ben simili salaamaaleykum Hadj Maodo Faye. aleykum salaam soxna Maria. lu nar a gën a fës ci xibaar bokk na ci yëngu yooyu di am ci biir euh, université kay ay garaw yoo xam ne yi daanaka bokk yi asalaamaaleykum gaa ñi nekk fële ca Bambey moom dañoo fipp rek ne dem dugg ci mba mbartal moo xam ne mi ne ñu dootuñu dellu gannaaw bu fekkente ne li nga xam ne moom la dembat ci saafara amuñu ko kon dañuy wéy liggéeykat yi ak tam yeneen étudiants sax yu nekk fële ca Thiès ñoom université bu Thiès ñoom itamit boo deful ndànk loolee li wokk ñee dana leen xuri ndax itam nee ñu nekk ci ay taax yoo xam ne yi da koy luye daal di leen di tasaare loolee mm, mënuñu ko dal di euh, euh, nangu daan ci dikk léegi euh, ci biir étudiants yi nekk foofule daañ ci toftal itam li aju ci wàllu jur geeg gi fi nu toll nii coow yi nga xam ñaar daf ci faral di am ak coow loolu amoon fële ca forêt ba nekk fële ca Bandia tey tamit maison des éleveurs am ay yoo xam ne yëkkati nañ ko covid bi fi ñu ci jot a toll ci wàllu ñàkk yi loolu daañ ci dikk toftal ci incha allah yeneen i xabaar ay ca bu ñu taaxee loo mu daal yaatal moom Hadj Maodo Faye Maodo Faye jërë ngeen jëf mbokk yi kon ci ànd ngeen ànd ak noonu li ñu koy doore rek mooy daanaka xabaar la boo xam ne bi wumpatul kenn mooy tey jii ci àllarba ji lenn ci jullit yi nga xamee ne ñoo nekk fii ci biir Sénégal tàmbali nañu ñoom tamit seenu koor gannaaw ba nga xamee ne matale nañ seen weer ba mat sëkk ci soxbaan bi euh, daal di dikk àllarba fukki fan ak ñeent ci weeru avril bi ñu nekk itam daanaka lim bi ëpp ci jullit yi tey jii daañu daal euh, tàmbali nañu euh, dugg nag ñoom itam ci koor gi ni koy itam yeneen réew yi fu mel ne Maroc yi tamit daal di defee ci biir àddina bi lii aju itamit tamit ci euh, euh, yeexuk li nga xam ne dafa jëm ci liggéey yi nga xam ne dafa am ci wàllu njànguwaay mi bérébu njànguwaay yi fële fu université ba nekk fële euh, bi nga xam ne moo nekk foofu la ànd ci ak liggéeykat yi dama doon daje ak taskatu ñoom ci seen bopp itam ak conférence des ñoom daal bokk ñoom ñëpp itam rek daal di joxe nag benn gàpp na laal fekk ayu bis su fekkente ne li nga xam ne moom la ñu bëgg ba seen yëf joyante ndax mbir mi dafa sanax lool amul daañu daal di delloo buum ca boy boy ba la te mën na andi jafe-jafe Babacar Ndaw jafe-jafe yi di woy ci daara ji di Iba Der Thiam bu Thiès bërëbu jàngukaay yëpp ndongo yi te na pare Saliou Thiam yor kàddu bu bés bi université Iba Der Thiam de Thiès budget bi mu am yëpp ci location la ko yemale daanaka daanaka li ko manqué téeméeri million ci at mi bëriwul ba université bi commencé ba léegi ñaari pavillon moo fi am ñaari pavillon yooyu 200 lii lay jël la war a jël actuellement université Thiès ëpp na juróomi junni étudiant ñooñu fan la ñu loosee. li si gën a yéeme sax ñi am baccalauréat daaw ba léegi am na ñoo xam ne ñu ngi ñëw sa tàmbaleeguñu cours yi El Hadj Abdoul Aziz Sy yor seen kaddu. mënoo jël ay nit sànni leen ca àll ba ay étudiant ay doomi jàmbur jugee fu ne nga indi leen ñu loger leen te logement yooyu noonu sax dafa doyul parce que yi fi ne nii ñoo ngi sonn nekk ci biir université bi depuis plus d'une semaine ñoom seen i ay doom defuñu noonu seen ay doom ñu leen mettre ci ay conditions yu baax ñun ñu indi ñu fii nii depuis plus d'une semaine étudiants yi nekk fii nii jàngoo amoo xaalis amoo bourse xam kooku boo nekk kañ wàcc tali bi da koy def luy jot jot na tax nag jàngalekat yi liggéeykat yi fi nekk si biir daara yu kaw ji ak étudiants yi benn ay bés may nguurub Sénégal ngir ñu tàmbaliwaat liggéey fii de classe yi nga xam te ne moom la étudiants yi soxla ñu jox leen soxlawuñu ministre liñ soxla mooy suñu chantier yii ñu eggale ko nañu indi ay ouvrier ci chantier bi ak matériel bi eggale chantier bi ñu eggale ko ñun soxlawuñu ministre fii même président de la république jarul muy ñëw soxlawuñ ko fi xam nga luñ soxla des ouvriers et des matériels de complémentaires yu eggale chantier université Thiès sinon bañu ci dara Babacar Ndaw Thiès Sud FM Babacar ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax université Alioune Diop wax nañ ko léegi ba nekk fële ca Bambey ñoom tamit am daal dinañu nagamal doxalinu njàng moomu le ndax daal ñoom dañoo xàppati ay fan yoo xam ni am nag ndoorte waaye xamulu fu muy yem dañu dañuy dem ba faw li fekk li nga xam ne moom la ñuy jàmbat saafara wuñ ko dugg nañ ci mbartal moo xam ne mi nee ñu duñu dellu ginnaaw ngir daal gën a mën a yokk lépp loo xam ne aju na ci wàllum xëy ci wàllu ndaw ñi ak itam liggéey liggéeykaay yi béréb ngi ni boo xam ne bi itam santaar la bopp dafay waajal lépp loo xam ne aju na ci wàllu mbayum dër mi fële ci ceeb nekk ca département bu Kébémer béréb boobe dana mën a sotti ab liggéey ba ci aju ci ñaar feek ñaar fukki fan ak juróom nee ñu lu mu gàtt gàtt ci weeru avril yi nu ne lu tolloog benn milliard ak ñetti téeméeri million ca tab bi Lamine Gueye Samane béréb bi ñuy jàngalee lépp lu jëm si wàllu xam-xam ñeel mbayum dër ñu koy amal fii si biir cepp si zone des Niayes si département bu Kébémer mi ngi def ay jéego yu am solo techniciens yi nekk si entreprise bi yor liggéey bi ñu ni téeméer bu ñu waroon def rek tey jii def nañu juróom-ñeent fukki ya centre bi nag ñu tabax ko si fukki hectare muy dalal fi administration bi war a nekk waaye itam bërëb yi nga xam ne fa la ñu war a jàngee am na itam juróomi hectare yi nga xam ni tool la bi nga xam ni ñi fay jàng wane li ñu xam ak li ñu mën liñ si jublu mooy fexe ba ndaw ndaw ñu tàgg leen si yenn liggéey yi waaye itam entreprise yi am main d'œuvre bu qualifiée docteur Souleymane Soumaré mooy directeur général bu office national de formation professionnelle. centre boo xam ni fi ñu ko def muy ceeb moom mooy bërëb bi mu war a nekk ndax bu ñuy wax horticulture zone des Niayes moo tax ñu koy wax mbayum lujum bi ak mbayum fruit yi si ëpp si zone bi lay jugee ñu gis ni itam am na entreprise yu bari yoo xam ne ñu ngi nekk si gox yi di liggéey te entreprise yooyu dañuy soxla am main d'œuvre maanaam ay nit ñoo xam ni dañ leen a tàggat ba ñu am compétence ak qualification bi tax ñu mën a liggéey ak ñoom boog bu ñu fi sampee centre bi war a tàggat ay ndaw entreprise yooyu ñu bëggatee recruter dinañ mën a recruter recrutement boo xam ni dina leen permettre ñu mën a def seen liggéey niñ ko bëgg a def lu toll si ñetti téeméeri ndaw nag centre bi mën a leen dalal docteur Souleymane Soumaré ñi fi war a jàng si direction bi nga xam mooy direction de la formation professionnelle et technique nekk si ministère bi ñoom ñooy saytu li nga xam ne nag mooy école bi ñaata ndaw ñoo fi mën a nekkandoo toll na si deux cent soixante-dix yoo xam ni mën nañu fi ñëw nekk fi jàng fi am na fi ay hébergement am na fi restaurant am na fi vraiment commodité yi nga xam ni yépp ndaw buy jàng war a nekk ci condition yu baax dinañ ko fekk ci biir centre bi nga xam ne mooy centre bi nekk ceeb. nguurub Sénégal lëkkaloo ak banque mondiale ak agence française de développement génne koppar yu toll ci milliard bu tegal ñetti téeméeri million bu ñu sukkandikoo ci directeur général ONFP nag centre bi liggéey yépp dina yemb ñu daloo ko fii ak ñaar fukki fan ak juróom ci weeru avril at mi ñu nekk ki leen doon jottali xibaar yi fii si Louga Lamine Gueye Saban Sud FM jërëjëf Lamine Gueye Samane Mamadou Lamine Diallo bu président bi jiite mouvement tekki am na bataaxal bu mag boo xam ne bi euh, bind na ko jëmale ko ci ressources naturelles yi ñëw ci réew mi ak i tamit euh, ñi nga xam ne ñoo nekkoon ay tirailleurs ak daal yeneen i yoo xam ne jëmale na ko ci ndaw ñi nga xam ne ñoo nekkoon fële ci Espagne yëkkati ay kàddoom daal moom Mamadou Lamine Diallo nekk ci kujje politique yi ne daal dafa mel ne njiit réew mi daal moom moom président Macky Sall daal bu bëggee rek dafa am ak waxtaan ak ñi nga xam ne ñoom ñoo waa tugal européens yi koy bégal bu nee tamit euh, xolom a ngi sedd bu fekkente ni euh, dem na seeti leen moom daal daanaka daal dafa fa buum rek takk ko ci baatam jox leen bu fekkente ni dégg nañu galoon waxam wax sax ne daal dafa mel ne moom li ñu coloniser woon da koo gënal fàttali fàttaliku ci sax euh, xalaati ki nga xam ne moo di Jules yi ci ay jamono bi nga xamee ne dafa waxoon ne sax xëy na coloniser bi ñu coloniser réew Afrique yi seen race bu kawe boobule daanaka baax na ci réew Afrique yi ak kàddu yi nga xam ne tam wax na ne njiit na ko daal ci tirailleurs yi ne ne daal Sénégal war na leen a jox seen lépp ndax dañoo bravé lépp loo xam ne jëm na ci wàllu maanaam feebar bi ne daal Macky Sall Macky Sall nangu na ay doomu sénégalais yoo xam ne ña nga nekkoon ci Espagne mu nangu ñu leen di delloosiwaat ci biir euh, na dafa waroon a laaj nag ñu daal di leen di régulariser maanaam régulariser leen daal di defar seen i këyit ak yu demee noonu le xët wi yaatu na lool du nekk ñu del siyaat ci bu juróom-ñetti waxtu jotee euh, laaj ci wu rëy waxar wi dafa wax na ko euh, ci ak béréb agence yu lu mel ne ANPEJ tamit yi mel na DER beeg yëpp Lamine Diallo dikk na ci euh, ne daal mel na ne sax Macky Sall Macky Sall daal wóoluwul sax daanaka euh, daanaka sax boo seetloo assemblée nationale bi daal nee na sax dafa bëgg daal samp ab benn commission indépendante boo xam ne bi maanaam di féete fenn euh, jëmale ko ci émédi yi ak yu demee noonu yooyu yëpp daañu ciy dikkaat ci tënk yi nga xam ne Mamadou Lamine Diallo bu tekki tomb bu ci nekk am na lu mu ci wax dañ koo tënk noonu daañu ci del dellusiwaat li aju yi tamit ci coow yi faral di am ci conflit maanaam jàppante yi am eh, ci wàllu càmm geek mbay meeg yu demee noonu le eh, ki nga xam ne moo jiite rek maison des éleveurs eh, di Ismaïla Sow di dikkaat di fàttaliku tamit di wartaloo tamit jafe-jafe yi amoon rek ci mm, maanaam fële nga xam ne moo di forêt classée ba nekkoon fële ci Bandia doxoon ci diggante baykat yi nekk foofule ak daal lenn ci ñi nga xam tam ñoo yore jur gi mu ne nag njiitu réew mi war naa taxaw Dia daal Ismaïla Sow ñu déglu dafa am benn promoteur boo xamante ne bi dafa ñëw ci biir forêt classée bi bugg fa créer une carrière population béykat yeeg sàmmkat yi aussi ñu génn ñu jàkkaarloog ñoom bi mu am ay affrontement loolu nag man damay ñaan état Sénégal que lii wax naa ci plusieurs fois bind na alerte na def na déclaration ci média yi mais jëriñul dara nun nag njaboot lañu dañoo ragal parce que bu bakkan wa doon nun ñooy ñàkk te loolu yépp sénégalais yi dañu ko war a moytu li tax ñu war ko mën moytu nag mooy ndey mbill jii di président de la république na jël matuwaayam ngir yàlla ñu xam ne foore bii bu fekkente ne dañu ko bëgg a jël hé état moo am doole nañu ko wax clairement ñépp xam dégg nga su ko defee éleveurs yi aussi ñu xool nu ñuy def sinon aussi ñu bay ay hommes d'affaires yoo xamante ni dangay toog jikki-jikki rek gis ñu dugg ci biir di dagg àll bi di si di nu mu leen neexee loolu baaxul ci réew te nag nañu xam ne secteur élevage dafa nekk secteur boo xamante ne bi dafay créer emploi day créer emploi direct ak indirect parce que lépp lu jëm ci wàllu ngooñ éleveurs yee koy utilise aliment de bétail éleveurs yee koy utilise sans compter yi teepank yi buus yi jaaykatu der yi ak ñeneen ñi nga xam ne dañuy jëriñoo secteur bi kon même ci ñiy yëngatu ci wàllu meew moo tax may ñaan de grâce que njiitu réew mi na seetaat lii parce que ñun waxuñu ngir bay bari wax dañuy wax ngir bëgg jàmm parce que Sénégal la am avant tout vraiment maa ngi ñaan autorités yi nañu ci wax te aussi tamit mu jaaxal ma ana waa eaux et parce que forêt classée kay xanaa wax dëgg yàlla waa eaux et forêt it waru saggan ba xamante ne kenn dana fa ñëw bëgg faa installé lu mel noonu foo xam ne fii boo fa daggee cara benn car nga fay ay centaine de mille kon na fay nit di ñëw ba war faa dara te déggoo ñooñu man jaaxal na Euh, kooku di Ismaïla Sow mi aar wàllu jur geeg maison de éleveurs euh, ci li amoon fële ca Bandia ak suuf si doon jël la ba coow li na kur ba daal ay wax jóg foofule ca ndar ci li aju ci wàllu ñàkk yi ba bërki démb ci altine ji fukki fan ak ñaar ci weer wi wàññe nañu lu mu gàtt gàtt ñaar fukki junniy nit ak juróom yu toftalu juróom-ñeenti téeméer ak ñeen fukk ñett ci ay doomu aadama yoo xam ni ping nañ leen ci Covid 19 bi ngir dawale leen euh, jàngoro joojule lu mu gàtt gàtt itam mm, fukki junni ak juróom-ñeent yu toftalu ñett fukk ak ñaar ñooñ ñoom it ñàkk nañ leen ci ñàkk wi ñu duppee AstraZeneca bi am na it lu tolloog juróom benn junni ak téeméer ak juróom fukk ak juróom benn yooyu Sinopharm bi la loolu moom la ñu xamale daal ñi nga xam ne ñoo nekk ci diwaan boobule ci wàllu ñàkk yi eh, gannaaw ba nga it ñu ne ci diwaan boobu am na lu mu gàtt-gàtt yeneen i fànn yooyu dafa yital covid bi junni ak juróomi téeméer ak ñaar fukk ak ñaar yooyu eh, wax nañu ne daal loolu covid 19 bi eh, alawtiku na leen juróom-ñett fukki nit ñoo fa daal di ñoom itam faatu nañ ci mbas mi Yves Tendeng ginnaaw bi ñu ko lancé ci ñaari fukki fan ak ñeent ci weeru février bi ñu weesu fii ci Ndar daanaka lii di campagne régionale bu vaccination maanaam ñàkku bi ci wàllum xeex mbas mi di Covid 19 ñoo ngi koy wéyandi fii ci Ndar. ci fukki fan ak ñaar ci weeru avril bi ñu nekk daanaka région médicale bu Ndar jot na xayma lu toll ci ñaar fukki junni ak juróom yu toftal juróom-ñeenti téeméer ak ñeent fukk ak ñett ci ay doomi aadama yi nga xam ne ni jot nañu leen ñàkk ci diwaan gi. ci boobu boobule lim daanaka lu toll ci fukki junni ak juróom-ñeent yu teftal juróom téeméer ak juróom fukk ak juróom ci ay doomi aadama daanaka lii di vaccin AstraZeneca lañ leen daal di ñàkk. la ca des nag te ñu toll ci juróom benni junni ak téeméer ak juróom ak juróom benni doomi aadama yi ñoom daanaka ci vaccin bii di Sinopharm la ñu daal di ñàkku tey jii daanaka ñii nga xam ne ni ñooy personnel de santé bi ñoom ñëpp vacciné nañu leen bu ñu sukkandikoo ci xibaar yi bàyyeeku ca région médicale bu Ndar ñoom ñu dellu itam di dalal xel yi te di xam ne ne amul benn effet secondaire bu nga xam ne ni nemmeeku nañ ko fii ci Ndar ci ñii ñàkk ba noppi. ci lu soxal nag situation bi ci wàllum xeex mbas mi di Covid fii ci Ndar daanaka région médical xayma na lu toll ci junni ak juróomi téeméer ak ñaar fukki ak ñaar ci ay cas positif ginnaaw bi mbas mi dooree ba tey jii te ci boobule lim ñu ràññee ci lu ëpp juróom-ñetti fukki doomi aadama yu nga xam ne ni ñàkk nañ ci seeni bakkan fii ci Ndar. ci lu soxal nag ñi ñu doon toppandi seeni i gu yaram ci biir kër yi seen i lim toll na ci juróom-ñetti téeméer ak juróom-benn fukk ak juróomi kaa te ñu ràññee ci juróom-ñetti téeméer ak juróom fukk ak juróom-ñaar ñu nga xamee ni jot nañ leen faj ba ñu daal di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 Sud FM. Yves Tendeng li aju ci wàllu euh, euh, réseau électrique ci wàllu courant bi jaar ci wàllu fleuve bi euh, mu di géeju dexu Gàmbi gi ak réew yi nga xam ne ñoo ko seq muy Sénégal gambi Guinée ak Guinée Bissau liggéey bi daanaka léegi mu yegg téeméer bu nekk juróom-ñeent fukki ya ak lu toppandi eh, jàll na Moussa Dramé. lël bii la ñu duppee comité régional de développement ñu gën xam ci CRD lu mu ci jublu moom lañ door ci wàllu énergie maanaam courant bi loo xam ne mu ngi war a dox ci diggante ñeenti réew di Sénégal Gambie Guinée ak it Guinée Bissau tolluwaay bi nag si kàddu yi soxeekoo ci Ngalandou Diouf nekk expert en sauvegarde environnementale ak sociale ci ingénierie conseil ay com ci projet bii lay te dalal na xel. poste la ak ligne su dee ci wàllu poste ligne bi jógee Taanaaf jëm Mansowa téeméer tamit boo jël daanaka juróom-ñeent fukk yëpp yemb na waaye comme ni ngeen ko xamee atum 2020 ak atum 2021 dafa bari woon ay ay ay yenn jafe-jafe yoo xamante feebaru mbas bi moo ko indi woon bu dee pour poste bi fii ak mois de mai dinañ ko pare bu dee pour ligne bi fii ak juin dinañ ko pare. ba ay bu ci war. am na benn bu ñu teg bu ñu tuddee PGS plan xam ne si biir dañoo lépp loo xamante ne ay matukaay pour que kenn bañ a bi que muy ñiy liggéey ci biir chantier yi comme ñu dëkk ci diwaan yi di ñaax entreprise yi bépp jumtukaay wala matukaay boo xam liggéey bi jeexee duñ ne gaañu yi nga xamante ne ñoo fay liggéey ñu respecté lépp li nga xam ne tënk nañ ko fa ba aar nit benn loraange daal du am. Mohamed Baldé nekk responsable comité local de coordination et de suivi projet boobu lay fii ci diwaanu Sédhiou dalal na xel ne it ñëpp ñoo xam ne si alawti nañ ko ci projet boobu lay jox nañ leen seen i ndàmpaay ci beneen fan it ba tey ci lël bii la ci kilifte adjoint gouverneur bu Sédhiou chargé des affaires administratives di Modou Guèye njiitum projet bi la di OMVG xamal nañ ci ne it danañ jàppale mboolem réew mi lépp loo xam ne si dafa aju ci yenn xeetu fitna yi aju ci wàllu genre maanaam moo xam góor la wala jigéen te it ñu leen di fitnaal mu nekk loo xam ne ci seen i gis kër jàngat nekkul lu war ki si doon jokkoo ak yéen ci Sédhiou Moussa Dramé pour Sud FM. Moussa ñu ngi lay jaajëfal soxna Maria ñu taxaw foofu. jërëjëf Hadj Maodo Faye ñu jox la dig daje incha juróom-ñetti waxtu eh, ci eh, yeneen ci eh, xibaar ci yaatal.